abone leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV député yu yeewi askan wi naka mën nañ ñu mer bu futtu lañ def jamono yi ñu toll nii mën nañ ña ku leen laaloon sax mën nañoo exploser ci sa kaw ba taxoon nag ñu daal di amal benn ndaje boo xam ne rek bu urgent la niki tey ci ngoon ndaje moomee nag lañ fa doon waxtaanee du leen lu du résistance maanaam fexe ba jéem a taxaw daal di indiwaat injustice bi nga xam ne rek mën nañ ñeen nemmiku nañ ko ci jamono yi ñu toll ni rawatina nag ci ki nga xam ne rek moom mooy seen leader di président Ousmane Sonko ak ñàkk jox gëdd respect gi nga xam ne rek jamono yi ñu toll nii nekk démb ay député yu nga xam ne dañ leen a gaz lacrymogène foofu lay ca góor gi li ko waral nag du leen lu du résidence surveillée bi nga xam ne rek mën nañ ne noonu lañ koy tuddee ci ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko ci jamono yi ñu toll nii nag ñu di leen di xaarandi ni tuuti ci kanam ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa yeewi askan wi war amal benn déclaration bu nga xam ne rek lañ cay fësal du leen lu dul réunion d'urgence bi nga xam ne rek ña nga ko doon amal poñ ya nga xam ne li jot te ruusandeegun bokk na sa mooy ne danañ forcé kii di Ousmane Sonko niki suba nag yann ko pour nag génnee ko fi nga xam ne moom mooy cité kër góor gi pour nag fas yéenee dem ci dialogue doon tele nag ñu bare bari ñi ngi xaar kii di Ousmane Sonko nekkate sa ka ko bàyyi wala sax dinañ ko jox lii di liberté am pour nag mu daal di génn foofu la ci cité kër góor gi bu ñu fàtte ne dañ ko barricadé booba ba tey ñoom ñi nga xam ne nag ñoo député yeewu askan yi mën nañu jamono yi ñu toll nii ñu waxul nguur rek dañ ko fàtte gannaaw nag bu ñu daal dee taal seen siège bi nga xam ne rek moom moo nekkoon ci ci VDN bi taxoon naka ñu amal li nga xam ne rek moom mooy toogaanum ñaxtu ni ki tey si ngoon war a nag daal di indi ay leeral ci kanam tuuti ca la nga xam ne rek amaloon nañ ko di leen di jaajëfal di leen toppal info yi way leen di abonné seen chaîne YouTube Partout TV